di am mbégte nag ci teew gi ma teew fii di sant it ñi ma fi tax a ñëw ndax gafaka dafa gën pepp te ñëw gi dafa réy fi man wute wu nag tabax jumaa de tey sama lépp nekkee sama waajur nekk sama sëñ nekk sama xarit sëñ Abdou Lahad dafa maa waxoon ne ma li ma am ci yëpp may naa ko sëñ Saliou yàlla dogal nag muy ku mën a dimbile ku mën a jëriñ nit ku mën a defar nit ku mën a teg ci yoon ak nit kon nag su ngeen dajee fii ci këram gii di ko fàttaliku ay jikkoom ak i jaar-jaaram la am solo ku jëlal tudd da ngaa war di nafar dangaa war di nafar gisatuñ sëñ Saliou gisatuñ ko mel ni moom kon nag nañuy fàttali ko ay jikkoom te di ko coroy rek sëñ sëñ kii wax na ko sëñ bi day gàggantee sëñ Moussa Waa na ma daa toog ak fii sëñ bi am bayit woo xam ne sëñ bi da ko sëñ Moussa Ka waxoon sëñ bi bu yàgg ci njàppandal sëñ Saliou bokk koo wax te fàtte ko nee sëñ bi naasul yàgg ku ñuy wax seex Ndiaye xarit bu sa jaar ci mbedd mi diggante ke seigne murtlak ke seigne saja gi mbedd amon na fi comme am na fi ba dit ba ci yeen bi ba tolo yeen rek yëkëti way wax dañ yeen dem yewon fa jappandal jappandi wul ku bamba wul ñu ya nañ ci duel serigne doyel abdou dia bi ne ko tigi <laughs> koko mëna gaganté kon yalla nu gaganté fa faaw koko nak mom man mënu wax ci mom wax deug yalla ndax dama ko sopp lool gëm ko lool wóolu ko lool doyloo ko mu sigil ma sagal ma teral ma ormaal ma mën naa wax ni daanaka nawle la ma defoon ci gàttal koo xam ne dangay bokk moom añ ba ma ko jëkkee damaa gàntal mu forcé ma mu mujj dagg di ma tegal mosuma ko am ci benn doomu sëñ Tuubaa ci moom rek laa ko mos am ko bokk ak ñoom war rafet njort sama sama dem àjjana xam foofu laa ko jort ndax defalu ma suñu borom dara defalu ma koy dara ma ne ko man it damaa bëgg a dëgg ak yow àdduna ak àllaaxira mu nangul ma ko loolu laa ko wax de waaw maa ko wax mu nangul ma ko ma ne ko it liggéey yi man de daa ko mu ne ma gisatoo sa sëñ ci jokk ci kenn damaa bëgg yem ci yow ngay sama sëñ adduna ak àllaaxira mu ne ma soo ko defee dina neex sëñ Abdou Lahad ma ne ko déet bëgguma lu ko neex lu neex laa bëgg mu nangul ma ko kooku nag suñ ko dee fàttali fii te boole ma ci ma bokk ci dama ci bëgg lool teew fi nag teewal fi njabootam gépp ak taalibeem yépp ñama ca sañ a digal nag tam leen rek ñoom fu ñu yëngale lu mel nañ fa teew ndax kuy dund ci barke bi da am pastéef ci moom te ñëpp ci barke Sëñ Saaliw la ñuy dund kon dañoo war a ci moom wax ji du gudd ñu ngi sant mboola mi fi teew ñëpp di leen gërëm leen ñaan ci barke Sëñ Saaliw yàlla dafa leen gudd fan dafa leen wér gu dafa leen saadu dare ñi teg ca sax ci jub ak ngërëmu Sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf